ba tey ci biir journal bi moom docteur Babacar Niang daan nay wax ne lii nga xam ne mooy oxygène bi dañu koy jaay ñi nga xam ne ñooy malade yi lu toll ci neuf cent mille francs yéenekaay gi de Le Quotidien nee lu jëm ci wàllu matériel bi nga xam ne matériel public la ñuy jël ko di ko jaay privé bi loole nag moo nekk beneen vague boo xam ne saafara ko daan nay jot yéenekaay gi di Rewmi Quotidien ba tey ci kàddu docteur Babacar Niang daan nay wax ne am na benn week boo xam ne juróom-ñaar ci ay ndaw yoo xam ne ñàkk nañu seen bakkan ci coronavirus bi te seen at tollu diggante fanweeri at ak ñaar jàpp ñeen fukki fukki at ak ñaara ba tey ci biir yéen kaay gi di direct news nee na en tout cas li nga xam ne am ba des dal mooy mbir mi xew ci coronavirus bi war nañu ko lijjanti Aliou Sow ci biir yéen kaay gi di réew mi quotidien nee na tous coupable ba tey ci biir journal bii di las ak Vox Populi nee na en tout cas li ba mooy mbir mi jamono ji ma ngi jàbba jonge las yéen kaay nee na diggante ajuma ak samedi am na lu toll ci fan ak ñeent ñoo xam ne ñàkk nañu seen ba bakkan ci coronavirus bi yéen kaay gi di Vox Populi na nag bii nga xam ne moom la ñu génn am na fukk ak ñeent yoo xam ne faatu nañu yéen yéene kaay gi di wal fajiri nee na coronavirus bi jamono ji ma ngi rey te jaaxaanul ndax lu toll ci juróom-ñett fukk ak juróom-benn cay nit ñoo xam ne ñàkk nañu seen bakkan ci semaine bi yéene kaay gi di la soleil bàyyi mbir moomee wax ci beneenu feebar di hypertension ak naka njombe yi nga xam ne moom lay def journal bi nee na maladie la boo xam ne au risque la te complication grave lay jox ñi nga xam ne ñoo ko amee yéene gi di Sud Quotidien wax nag ci ñi nga xam ne ñooy am jafe-jafe ci ndakaaru dem beeg dikk bi dafay faral di tagg témbe journal bi nee na liggéey yi nga xam ne moom la ñuy def fa ci BRT bi bëri na foo xam ne moo ko waral ak autopont yi nga xam ne moom la ñuy liggéey ci Dakar journal bi nee na en tout cas pëccëxoo na te embouteillage bi bëri na loola yéen kaay gi de la sa xëy di wax ci lu jëm ci wàllum terrorisme ci Sénégal nee na Sénégal mooy premier fournisseur djihadiste en Afrique subsaharienne yéen kaay gi di li quotidien ñu xëy fekk fa Malick Ndiaye bu passé fa nee na ñi nga xam ne ñoom lañ dénk réew mi au lieu que ñu def fulaak fayda ci coronavirus bi maanaam attaqué virus bi ñu nekk fa di attaqué Ousmane Sonko yéen kaay gi délibération xëy dañu xibaar naan Lobe Ndiaye mi nga xam ne moom la ñu faatoon ci autoroute bi enquête bi wane na lu garaawa garaawa nee nañu ab féticheur malien moo ko rey yéen kaay gi di réew mi ko di jee gendarmerie daan nay génn ab communiqué nee na teg nañu loxo ñi nga xam ne njort nañu ne ñoo rey Lobe Ndiaye moomee yéen kaay gi di direct news nee na nag dafa mel ni Macky Sall am njiitum réew la moo xam ne dese naa am ay renseignement maanaam dese naa am ay information rawatina ci wàllum suuf si nga xam ne moom la ñuy wax ci géejawaay maanaam bande filao yu ak la nga xam ne moo fa wu journal bi jàpp na ne Macky Sall xamul lépp ak nag wàllum njublang gi nga xam ne am na ay fonctionnaires yoo xam ne maanaam ñoo ngi koy def yenn ci ay fonctionnaire détournement yi nga xam ne moom la ñuy def journal bi jàpp na ne Macky la yëgul lépp yéen a gi de la ministre Antoine Diome moom nag ma ngi rafetlu bu baax a baax mbind mi nga xam ne commencé nañ ko nee na lépp good na yéen a kaay gi de la Quotidien xëy na wax ci coronavirus beeg télétravail maanaam njariñ li nga xam ne am na ko ak gàllankoor yi nga xam ne ci nekk yéen a kaay gi di réew mi Quotidien nee yi nga xam ne ñoo defoon grève de la faim ca université Cheikh Anta Diop ñu dàqoon grève boobee nag teg nañu ko si suuf ginnaaw ay médiation yéen a gi di source xëy diñu xibaar naan ñu baccalauréat bi jamono ji ma ngay toj sa Jurbel foofee dafa am benn étudiant boo xam ne dafa ñëwoon doon defal copinam examen yéen a kaay gi ne na dafa solo woon comme xale bu jigéen waaye nag teg nañu ko loxo moom mi nga xam ne moo togoon ci salle de classe yi bëgg a def examen boobee ak ki nga xam ne mooy xale bu jigéen bi mu ko doon defal yéen a kaay gi di réew mi quotidien xëy wax ci fédération sénégalaise bu football jamono ji ak élection yi nga xam ne moom la ñu si doon amal am na si kenn koo xam ne ñàkk na si bakkanama di Samba Sarr ab malaise moo ko dal journal bi nee na li ko waral mooy Augustin Senghor moo doon dem ca Pikine ngir nag amal faab campagne ma ba ñu demee nag journal bi nee na Samba Sarr moom i nga xam ne moo jiite AS Cosaan dañ ne woon di dugg sa saal ba bu ma xante daal di am jàppante am ba mu mujjee daanu malaise ñàkk bakkanam ñi nga xam ne nag ñooy ak njabootam ñoom nee na ñu nañu ko autopsie yéen kaay gi di sunu ñu xëy fekk fa Balla Gaye numéro 2 nee na jamono ji làmb ji manqué na ko bu baax